sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka seek ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala nabiyil karim noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ ahmadul muxtaar mi fi nekkal cheikh mouhamadul moustapha mi ngi yaatal nuyoo bi loolit di ci jiital kilifaam gi nga xam ni mooy sëriñ mouhamadou muntaxa ibnu cheikh mouhamadul basir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di boole ci nuyoo bi ay doomam di ca jiital it sëriñ Cheikh Mbacke Madina muy xalifab sëriñ Mbacke Madina te tey sëti sëriñ Modou Moustapha yi mu mag ci waaye ma ngi cay teg nag sëtam di taawub ñii ma tudd muy sëriñ mustafa Mbacke Mouhamed moom sëriñ mbakke Mouhamed mi nga xam ne lii tey wajuram wa moo ko daan taxawu. taxawu bu rafet ba ñibbi àjjana moom sëñ Moustapha nag mu jël ko jëlin woo xam ni fa ko sëñ Mbàkke bàyyi woon yeggale na ko foo xam ni bu sëñ Mbàkke del si woon dana am ngërëmam ndax lan yiteem ci sëriñ bi ak yaatalam ci sëriñ bi ak li ñuy wax ni sët bu ne maamam lay niru ma ne ko seex Muhammadul Moustapha rawoon boo ko gisee Serigne Moustapha Mohamed jàpp ci te la nga bëggoon Cheikh Moustapha nga wut ko ci moom donc am Serigne bi nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal moom mbooleem ay wajuram mbooleem njabootu Serigne Modou Moustapha gi mbooleem sheikh yi yaakaar kër gi sëñ Ahmadou nee na ñëpp la maasale cant ak gërëm ak i ñaan ndax bisub Serigne Touba bii Serigne Modou Moustapha di yeesal at mu ne njabootam gi fi des di ko yeesal. nga xam ne ñibbi si Serigne Touba jóge njaareem ñëw Touba moo am la sëñ Modou Moustapha jël ci ñaar fukki fan ci weeru tam xarit di ko fàttaliku kooku mooy màggal gu jëkk gi am ñu ko naan màggalug Serigne Cheikh am ñu ko naan màggalug Daaru Xuddoos ñi naan ko màggal gu jëkk gi waaye mooy màggal gi nga xam ne daal ñibbi si Touba gu Serigne Touba la sëñ Modou Moustapha jël di ko yeesalaat ci jàngal xuraan ak xasida julli ci yorante bi def ay bernde julli di loolu rek moo tax sëñ Mbour Moustapha yëkkatiwaat ko kon sëñ Ahmadou Moukhtar nee na bu ngeen delloo wax leen sëñ Moustapha ni ko am na ngërëmam am nay cantam am na ñaanam am nag it fas yéene jàppale ko ci lépp lu mu ne mu ànd ci ak moom kon jëf ji mat na sëkk sëriñ bi bég na lool xolam sedd na guy bu soobee yàlla nag dana am bés boo xam ne muy suba dana toog fii yëkkati ay kàddoom jëme ko ci sëñ Moustapha jëme ko ci yéen ñi nga xam ne yéen la yebal yàlla taxawu leen suturaal leen te seenu bëgg ngeen am ko te kenn ku nekkit sa tey june di gàcceel sa démb ba àjjana ci barke sëñ Mour Moustapha jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa